mbokk yi dalati leen jàmm ci li gën a fës yëglekaay yi ñu commencé ko direct news mi del soit ci coow li nga xamante ni moo nekk ci nguurug Sénégal gii daan yi cour de cassation bu France teg ci ndoddam fi mu toll nii ñeel dossier Karim Wade rawatina kaaw bi boo Bourgi yëlekaay bi mu ngi xam ne état bu Sénégal nag mujjee nañoo génn def ay leeral ci milliards yi nga xamante ni teg nañ ko ci seen ndodd bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Ba mu ngi xam ne ci biir yëlekaay bi mu war a jox bi boo Bourgi li am ba des moo di daanuñu état bu Sénégal ci boppam la ñu daan ndaxte moom moo contrairement ak média bi li mu wax ne état bu Sénégal ci boppam la daan mu war a fay bi ba bur ci lu toll ci 168 milliards Vox Populi moom ubbi xët bu yaatu def taxaw seetlu ci pôle judiciaire financier bi nga xamante ne moom moo remplacé CREI moom institution bu bees bi yan mooy fooram faiblesse li mu mën ak li mu mënul bu ñu sukkandikoo ci maître Ousseynou Gaye mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne suñu waxantee dëgg doogu nag loi bi moom mu ngi fi bi ñu taxawal sax dafa am ay problème ndax bu nu moytul assistant financier yi ñoom ñoo nar a indi problème nag ci biir réew mi ndax mën nañoo indi ay fay yu bëri ci système bi moom maître Ousseynou Gueye di préciser di xamle ne buñ fi nekkee di concurrence yenn ci ay juridiction surtout nag jëm ci yenn infraction yi dañuy sonal suñu bopp rek pôle judiciaire financier bii dafa am ay limite te limite yooyu yépp nag maître Ousseynou Gueye dellusiwaat na ci ci jamono jooju fekk maritéw ñaan moom di sàkku ci président Macky Sall moo ci jamono ji nga xam ne réew mi amul kenn koo xamante ni xelam dal na jot nag fi mu toll ni ñu waxtaan juboo ngir ndawi Sénégal yi seen xel mën a dal yëleekaay bi ne en tout kay seen xel dalul ndax bisu tey bii bis bu métti lay doon ci ñoom rawatina askanu Ndakaar yi nga xam ne seen transport li ci ëpp na ngi jël bus tata te jii may wax ak yéen liggéeykatu yooyu dañoo nekk ci grève ñetti fan collectif ba taxaw nanu fas yéene indi ay perturbation benn bus nag dootul dawati Ndakaaru enquête yëleekaay moom def taxaw seetlu ci

trente mille logements waaye sa wet ga mu ngi sàkku ci responsable benn bokk yaakaar yii ñu ànd nekk benn juboo bépp décision bu président Macky Sall mi daal di jël rawatina ci candidat wu bokk yaakaar ci élection présidentielle yi di ñëw ñu ànd ci ñun ñëpp na xam ne kooku mooy sunu candidat en tout cas bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi ne benn bokk yaakaar moom na ba noppi ndax jamono ji may wax ak yéen la wax responsable yaa ngi tojantey bopp kenn ku ci nekk candidat ba muy di ko jàppale rawatina ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo te ci biir yéenekaay bi Ibrahima Baba Sall vice président wu assemblée nationale bii nag fi mu nii waxul daraay Amadou Ba lijjëttiwu ko te jàppewu ko sax candidat am ka mu jàpp ne fi mu toll nii kay bu choix doon am te mu war koo jàppale kenn lay doon mi Abdoulaye Daouda Diallo même Aline Ndao Fall tamit secrétaire national chargé de la diaspora nee na moom it jox na bopp Abdoulaye Daouda Diallo jàpp na mooy candidat bu baax bi li di firnde ne Amadou Ba mu ngi gën a ñàkk nag ay point pour mën a nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle wax ci boppam moo tas ba njiitul laa la taxawal na ab mouvement fas yéene samp ndëndëm laa la wax ci élection présidentielle yi ñu jëm l'observateur ne benn bokk yaakaar kay fi mu nii jar dimbale surtout nag président Macky mi nga xamante ne nii jamono ji may wax ak yéen ci la nekk tëddatul nelaw ba yàndoor ndax responsable yi fi mu nii ñoom ñëpp ñoo ngi ci salle ba may ko nopp nag tey xaar lay tànn ci élection présidentielle yi di ñëw waaye bu fekkoon nu jubóon nañu ba léegi defagul déclaration pour wax kan mooy candidat wu benn bokk yaakaar fekk ca ga moom coowal CREI ba léegi si laa la wax jeexagul donte rey nañ ko gas ba mu xóot suul ko waaye fi mu nii coow jeexagul de dèjà bi boo Bourgi Cour de cassation bu France fi mu toll nii sàkku na ci état bu Sénégal mu jox ko ndàmpaayam naka noonu tamit avocat wu état bu Sénégal gii ci jamonoy CREI yi ñu ngi sàkku ba léegi laa la wax seeni honoraire xaalis ba leen nguur gi yoreel ba léegi si fayuñu leen ko boo xam ne kenn dootu ko bitim réew Madiambal Diagne def ci ay révélation yu rëy di xamle ci biir yéenekaay bi ne ñetti yoon laa la wax Adji mii doon na jéem a xaru na ci biir yéenekaay bi ne fi mu toll la muy lijjanti kay moo di benn bokk yaakaar ci biir yéenekaay bi Amadou Ba moom ci boppam xam na ne fi mu toll nii gañ ak Ndakaaru Njaay sax fi mu toll ne fi bu ñu demoon élection présidentielle deuxième tour moom mënul ñàkk en tout cas li wértéwoon moo di président Macky Sall ak ku mënti tànn ci élection présidentielle yi di ñëw mbër la mu nar a nekk ci ay risque ndax gañee élection nag ci ñoom source amam di ñu nettali situation bu doy bi nga xamante ni waa Touba ci la nekk jamono ji mbeddee laa wax mu ngi fees dell ki ndox gannaaw taw yu njëkk yi nga xamante ni oto mënul dugg oto mënul génn sareet sax laa la wax fi mu toll ni mënta traversé askan ba tëmb ca ndox ma même hôpital bu mag ba nga xamante ni président Macky Sall moo ko inauguré woon nekk ci niveau 3 du hôpital bu ndaamaatu bii laa la wax askan ba mënatuñ faa dugg situation bu foo ko nattu rek jamono ji weesu na ko yéenekaay bi duñu xam ne biir hôpital bi dafa fees ak ndox biti hôpital bi dafa fees ak ndox kuuru hôpital bi daa fees ak ndox bureau hôpital yi fees na dell ak ndox salle de soins yi mu ngi fees dell ak ndox salle de consultation yi mu ngi fees dell ak ndox hospitalisation yi waxi noppi askan bi laa la wax mënatuñoo am accès faju yéenekaay bi ne li gën a graaw na fi mu nii ca situation ba moo di mairie bi sax laa la wax mairie Touba mu nga fees dell dell dell ki ndox ay xeer lañ mëj a tegle moom la waa Touba di dund tax na transport ba tamit dafa yokk pour nga traverser ndox rek di nga fay xaalis bu bëri yéenekaay bi dem na sax ba ñuy xamal ne 3000 boo ko fayul doo traverser laa la wax ndox dox sa soxla pour nga dem sax sa jumaa ja 3000 ngay fay ONAS nag ndimbal ca na mu gën a gaawee en tout cas mbir bu doy waar tamit yéenekaay bi nettali nañu ko nag ci autoroute à bi nga xamante ne nii gannaaw rëbb boo xamante ni police bu ginnaaw raay bi doon nañ ko def ci benn waay buy wuyoo ci turu fàllu moom ak benn gangam la ñu sibsene woon na dañuy jaay yàmba bi ñu leen toppee di leen dàqee ci la fàllu di jéem a tëb nag miir bi nga xamante ne nii moo séparé askan bi ak autoroute à péage bi tëb na ko di jéem a traversé nag autoroute à péage bi benn oto daat koy tël noonu la fa mi jaare ñàkk bakkanam <laughs> moo ngi continué di abonné ak bàyyi xel seen chaîne di Mourchid TV tey bàyyi bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar kon nag yéen ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah.